Bienvenue sur Salam Vision. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور دي محمد ساخو دي بايو بالا جاي 2 waaye di bàyyi mboolem fa tabarakallahu kuy moroomu Balla tey takk ngemb ci làmb ji kooku nag moo fi bàyyi ko ñu denc ko démb ca yoof jàngal ko alxuraan ju bari fii ci kër Balla tey jii ñu war koo ñaanal cëru dabboon waaye suba mooy ñetteelu fan bi fii ci kër Balla mboolem kuy kilifa ak diine ak kilifa aada teew nga fi bi nu waree xëy fa tabaarakallaahu ba yiwi gan ñi war a dem rudda buun fa tabaarakallaahu ci la Balla amee gan gu màgg gan gu tedd fereeram di mbokkum réew mi di taalibe di ko yàlla sunu borom baaxal di Bombardier sëriñ Dia xel yépp dem na ci li rasulullahi alayhi salaatu wasalaam waxan ni al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa liyaadihi ñu ne ko rasulillahi loo bëgg a wax mu ni jullit dëgg mooy ki nga xam ni jullit yépp dañuy mànkoo mucc ci ayu gémmiñam mucc ci ayu loxoom waaye tey jii fa tabaarakallaahu ku gis gitaay bii fa tabaarakallaahu te bëgg lu baax sab xol dina sedd sam xel dina dal kon sëriñ fa tabaarakallaahu ñoo ngi lay jaale ak sëriñ Moussa mi nga àndal ak délégation bi nga àndal yépp fa tabaarakallaahu di la wax siggil ndigaale mu mel ni lii nga def sa digganteeg bal la waaye sa digganteeg sa waajur wu tedd bi la waaye sa digganteeg askanu làmb la waaye sa digganteeg réew mi la bu la neexan toog ci mbuur jënd juróomi nag wala sa ñaari nag toj ko def ci mbana yi togg lu ko saraxe ko baas say baas Balla Gaye sol aw dàllam ànd fay bi yëpp ñëw ni la mbër lu xew nga ni ko sama waajur wi Double Less moom laay ñaanal Mouhamadou Sakho ngir sama bàyyi la bu boobaa Balla na daal siggil ndigaale nga ni ko siggil sa wàll kon egsi nga sa kër toog nga ak sa frère nga ni ko tiis wii dalul ci sa kaw ki sama kaw la dal kon danaa ko ànd ak yow kon egsi nga dana lay jébbal kàddu gi déglu la yow ak sa frère fa tabarakallahu waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp jiital nuyoo bi sama frère sama rak Omar Sakho ñu gën koo xam si Balla Gaye di bokk ak moom naqar bi waaye sant yàlla la ndax eh, li ma yàgg wax rek mooy eh, li ñu bokk métier la boo xam ni pour benn ngoon la mais ñoo seex àdduna ñooy demlante ñooy fekkalante eh, ma yàgg wax ni aussi nit ku nekk ki nga bokkal métier mooy sa trésor boo déggee ma doon wax wax boobu nag xew-xewu bànneex la ak xew-xewu naqar ndax àdduna ñaari rek moo fi nekk naqar la ak bànneex su bànneex bu ñëwee nañ ko bokk su naqar bi ñëwee ñu bokk ko euh, sunu waajur yi fi jóge nag euh, seede bi yëpp benn la mooy monument la woon ci Sénégal monument la woon international parce que teewal na Sénégal fu nekk ñun de fekkee man day boog fàttaliku ma si si si carrière waaye li ma jot a dégg ci moom wax dëgg yàlla jàmbaar la woon te it ku bëgg jàmbaar la man xam naa si dara ndax maay fàttaliku mas nañ ma invité benn mbapat fii yëmbal Pape Sylla moom ma invité woon foofu ma ñëw fekk ko fa mu ne man damaa bëgg jàmbaar te ni ma gis ngay bëree jàmbaar mooy bëree noonu comme moo lay woon kii bëgg na jàmbaar ñu ngi koy jaale Omar di ko jaale Sa Thiès di nuyu aussi liiru jaar mi moo fekk di nuyu Moussa Mandal ak almaam yi di nuyu presse bi aussi euh, di leen wax ni maa ngi koy ñaanal yàlla gën koo may xolu muñ ndax ñun mbër yi nee naa la sunu adversaire benn dimanche la après bu jàllee jàll na ay doomu aadama lañ te yàgg naa wax ni mbër yëpp bu dul làmb koo si gis da nga naan ki du mbër ay nit ñu baax lañu kon nag Omar ñu ngi la koy jaalee sunu waajur woowu nit ku nekk mën na ko jaale boppam Sénégal ndax tey Sénégal moo perte monument bu mag la ñu perte kon nag yàlla na yàlla may xolu muñ ah di ko jaale famille bi yëpp nag comme yow laa fekk su ma jiyee jaal mi teg ko sa loxo nga jàlleel ma ko famille bi yëpp di wax ne àdduna noonu la ndax tey euh, dee moom. gën a bees li moo fi nekk mais naxar moom ñun a dëkk bi ma xewee sama kër danga sol sa dàll ñëw ba foofu teew comme jullit ak moromam say morom yeneen morom yëpp teew noonu lañ ko defee kër Eumeu Sène noonu lañ ko defee sunu papa mbay géey tey fii la dal yàlla na fi gëj comme mënul ñàkk kon nag wax ji mën na bañ a gudd lool tànki njaal la woon en tant que mag ak rakk en tant que frère kon nag ñu la koy jaale bu baax di la wax ni yàlla na la yàlla defal xolu muñ jërëjëf di ñaanal yàlla aussi xaaree ko àjjana fi daw si ak képp kum fa fekk tam nañ ci yaakaar bu baax a baax jërëjëf mbokk yi kàddu yooyu moo bàyyi koo ci sëriñ ja jeey tudd na léegi fa tabaarakallaahu mbokk yi mu àndal yëpp sëriñ Moussa mu baax mi ak almaam mu baax mi joxe na am njaalam kon ñun ñëpp ñu teewlu Balla gay fa tabaarakallaahu mu delloo ko ay kàddu njaal bisimilah Balla jërëjëf buur merci beaucoup maa ngi lay ñaanal tawféex ginnaaw bañ sant yàlla nag julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam sartaat ñaari waajur yi kon ni ñu koy faral di def vraiment mayam kontaan ak mbégte suma suma frère di Serigne Dia di Bombardier avec Moussa ànd ak euh, comment ça s'appelle yi vraiment may nekk loo xamante ne lu may rafetlu la mu nekk nit ko am ne nit ko baax la kon li nga faral di wax rek mooy yàlla moo ñu boole ñu wutante xaalis suñu biir kenn ku nekk yéene ne sa morom jàmm lii dalma dal ma lu mënta ñàkk la waaye tey yéenewuma ko ndax dund ak dee ñoo ànd waaye kenn ku nekk boo amee sa morom amee problème da nga koy yëg ci sa biir xol parce que yéene woo kenn lu bon donc vraiment li mu def nii acte noble la acte bu rafet la acte boo xamante ne vraiment ku baax dëgg dëgg moo ko mën ndax xam nañ ne adversaire la ñëpp xam nañ ne mbër la confiance bu mu am ba ñëw fii loolu nekkut du du domaine sax confiance bu gëm yàlla la domaine delloo xel sa sa borom la accueil bi ma ko accueillir aussi tamit c'est la même chose ndax tey ku déplacé wu bàyyi yitteem bàyyi léppam nga war a bëri moom ñoo fi ab cant mënu ko weesu yàlla na ko yàlla fay tànk dérangement ak déplacement yàlla na la yàlla fay tànk yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal suñu papa Mamadou Sakho yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mook mbooloo mu julli bi mu fa fekk ci àdduna lii ak àdduna nag ñoo ànd vraiment maa ngi seedal ne doomu aadama yi lii rafet na euh, ni nga ko defee noonu la ko Eumeu Sène defee noonu la ko Gris Bordeaux defee noonu la ko Boy Niang defee noonu la ko Tapha Tine defee noonu la ko Lac de Guiers defee ak guy gi ñëpp mbëri yëpp noonu lañ ko defee kon donc day wane ne chaque jour sa morom lu waaye morom xew rek muy bànneex muy naqar sa morom koy sentir donc vraiment ñu ngi am mbégte am kontante di ñaan yàlla yàlla na yàlla sàmm la te jàppale la ak mbooloo mu jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi di wax ne Double moom ñëpp xam nañ ne exemple la ndax léeg sax bu ñuy wax dama leen wax ne man sama papa laay tiitaroo donte na nag yàlla moo ma def tey Tyson nekkoon sama idole ma bëgg ko waaye xam nga ku toog di tiitaroo sa baay parce que sa baay moo def li tax nga koy tiitaroo kon donc Sénégal moo ñàkk àdduna moo ñàkk ndax fu ne dem na fa pour siggir réew ni ma koy defee noonu la ko mbër yëpp di ko defee kon donc vraiment ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana yi gën a kawe di la wax Bombardier euh, dalal ak jàmm yàlla na la yàlla fay tànk yiw di la wax jërëjëf vraiment merci beaucoup. Sëriñ jërëjëf kàddu yooyu la Balla toftal. nee na fa tabaarakallaahu mboolem tànk boo seq rek ak ñi nga àndal ba egsi fii lépp yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala def aw yiw xolam sedd na waaye tey ji àdduna seen xol sedd na ndax it fa tabaarakallaahu nii rek la sunu borom binde jaam yi li tax mu wàcce ñu fi mooy jaamu yàlla ak liggéey wa maa xalaqtul jinni wal insi ilaa li yaxbuduni wa maa umiru ilaa li yaxbudullaah muxlisina kon jaamu yàlla gi yéene nga ci liggéey bi yéene nga ci moom ngeen séq moo tax nga delloo si waat sa jaamu yàlla ngir sa waajur fi bàyyi koo jaar ko ci balla kon yàlla na la ko jox a ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon ñu bàyyi rek fa tabarakallahu Moussa def ñaan ñu tëj fa tabarakallahu Moussa bisimilah wala almaami rek fatiha fàllaxeeg fukki xul wallaahu ak benn yéene ko sunu waajur wu fi bàyyi ko Mouhamadou Sakho yàlla na ko su borom def ca téere jëf yiwam ak mboolem way dawle yëpp asbillahi mina seytaan rajim bismillah iyyaka na'budu wallahi wa ahna bismillahi rahmani rahim wallahi wa amin ya rabbal alamin allahuma salli ala yal na yàlla nangu ñaan na yàlla nangu ñaan yépp amin ya maa ngi lay fay ma sœur sa diggante Balla ak Balla Gaye kenn dootu ko naatamle ci cimmim réew nee naa dootoo leen ñaar kenn ngeen dem na ba seeni jabar yi sax kenn lañu tey mu tiis bu ak métit bi dal ci kawam tey looy wax waaw damay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw loolu nga wax dëgg la parce que Omar dafa mës a wax bi nga xam ne wax boobu dafay nekk sama xol chaque jour doo mës a toog ñu yàgg yàgg man ma baabu ma mën a xanaa xamoo ni man ak yow ay famille nanu kon xam nga loolu nit ku ko wax rek deseelatu la dara ci àdduna tey lii bu ko dalee man la dal ndax papaam sama papa la ma fekkee góor gi ba mu tawetee ma gis taxaw gum ci taxaw am na ñi nga xam ne tey yor nañu moyen bu bari seen waay jur feebar lañ si war def defuñu ko mais mu koy def dañ doon nekk fenn sax ñu woo ko ñu bàyyi lu muy def taal otoom daw dem kon kooku jàmbaar la ci côté boobu fonk na waay waajuram jàppale na ko te yaakaar naa ni ku gis Double xam ko xam ni Omar Sakho doomam taxaw na ko taxaw bu rafet ci ba muy dund ak boo ko xoolee tey ji ñu koy yóbbu ci këram gu mujj taxaw bi rafet na kon lu ma mën a wax mooy damay ñaanal Omar yàlla na ko yàlla dolli sutura yàlla na ko yàlla dolli xolu muñ ndaxte mën nga nekk ndaw fekk yàlla moo lay jiital te yàlla moo ko jiital kon tey jii maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla woyofal weñ bi ci kawam di jaale ñëpp di jaale lu ko dalee taawam ba ci suuf seen taaw ba ci suuf di jaale Guédiawaye di jaale Sénégal gépp di jaale le président de la di jaale euh, premier euh, Matar Ba le ministre des sports di jaale Birane bi nga xam ne mooy le président CNG de lutte di jaale xaritam yëpp di ko jaarale si Thierno Gueye di jaale ñëpp di jaale Sénégal gépp di jaare képp kuy mbër di wax tamit si turu yi nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux maa ngi koy jaale tamit parce que moom moo jiite mbëri waaw te def na lu rafet te démb si guddi sax muy woon fii kon xam ne loolu mooy njiit mhm. waaw giri moom loolu mu def lu rafet la parce que loolu mooy àdduna mhm. te dinaa la xamal benn mbir gis nga mbëri ñoo bokk ndey bokk bàyyi mën na noo nekk ci làmb cëriñ cëriñ mais ku ci am naqar ca nga koy doo ko xam boo xoolee tey rek nga xam ne ñun ñoo bokk ndey ko bàyyi kon suñu papa Double def na ci làmb li nga xam ne kenn war ko mën a fàtte te kenn du ko fàtte mhm. te incha allah rabbi kenn du ko fàtte que xam naa ne bu lii jàllee dina am li nga xam ne normalement état bi dina ko def benn monument muy ñoom Fallaye ñoom Mbaye Guèye ñoom euh, Boy Bambara parce que tey boo xoolee am na xale yu war a judduwaat ñëw xam fekk ñu leen fi. Mhm. du ñu xam seen histoire kon loolu il faut ñu am fi nga xam ne dañ koy def lu mel ni musée nga xam ne xale yi dañuy dem foofu di gëstu di bës ordinateur di xool xam ne kii mooy lii kii fii la jaar kii fii la jaar. Mhm. lu mën a wax daal mooy maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. tey sa papa jooju waaw lu ma mën a rencontré ci moom bëri na parce que man dama nekkoon sama kër nijaay géejawaay falaa laa presque dama doon romb lu bëri te moom boo ma mësaan romb boobu yaakaar naa ni ku seen Double Less da ngay daw pour dem nuyu ko mais bu ma mësaan seen même bu ma gisul day taxaw ne woo leen ma goos bee ma ñëw mu ne ma nanga nga góorgóorlu champion nga même làmm nii boo mësaan am combat dem nekk sama oto war a bëre bu dugg seen yi gis sama oto gaare dina ñëw ba si man na ma na nga góor de nanga def nii ak nii kon kooku xol bu baax la yor te xam naa ci moom li nga xam ne mooy xol bi dara newu ci parce que yàgg nañu dem ñuy toog man ak Omar ñuy waxtaan vraiment muy wax kon kooku nit ku baax la yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla bu ko cat jiitu ci baa bàmmeelam di ñaanal Omar nag yàlla na ko yàlla may xolu muñ ndaxte waajur moom ku ko ñàkk rek metti na waaw. tey boo ko doon dugal tey benn message maanaam lan ngay wax Balla waaw li may wax Balla Gaye rek mooy mu continuer ci nu mu meloon. uuf njaboot gi yàgg na leen uuf mu gën a continuer gën a jàppale xam ni tey doon xale teewul nga doon kilifa te xam naa xolam xam naa Omar xam naa ko bu baax a baax waaw kon dama koy ñaanal rek yàlla lafal ko cat yàlla may ko gudd fan may ko wér may ko ay at yu sut atu waajuram bi jaar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. merci beaucoup. merci merci. Lirou nuyu nañ la. soxna si na ngeen def maa leen di fay yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen ziar. waaw di leen ziar wax dëgg yàlla rafet seen teewaay tamit. tey tiis ak naqar daal ci seen kaw rawatina nag yow mi nga xam ne ak ku la xam-xam sa digganteeg Balla Gaye 2. Mhm. waaw sant yàlla rek yàlla moom lu mu dogal rek xañ na loolu moo gën barki dem moo Ndiaye lan jooy Père Mbaye Gueye waaw tey ñuy tey ñoo ngi jooy Père Double Less waaw yàllaa ko dogal waaw yàlla na ko yàlla xaare àjjana di ñaan yàlla yàlla may ñu xolu may ñaan sama rakk ji yàlla mooy ko xolu muñ tam dëddoo ko jàmm rek waaw loolu dañuy ñaan rek di rafet seen teewaay yéen ñëpp wax dëgg yàlla ndax àdduna nii rek demal maa ngi ñëw la rek demal demal demal demal maa ngi ñëw la rek ndax tey jii euh, fii mën naa ni àdduna moo fii teew tey ndax ki dem da koo liggéey ci senegal liggéey ko ci bitim réew voilà tey euh, li mu waroon def ci ay njabootam def na ko muy jom fulla fayda te def na ko ci njabootam njaboot gu ne looy ñaan euh, ngërëmu waajur di sàkku ñaan ngërëmu waajur te tubaarkàlla macha allah xale yi am nañ ko ñoo leen koy jaale ñoom ñëpp di ko jaale Balla gay 2 waaw yàlla na ko dëddoo jàmm at ñoom saakees at xale yi ñoom ñëpp voilà at maire bi at axlu làmb yëpp waaw waaw ba ci président sax danga ko war a jaale ndax jóge na fi dem ci ay réew jëli raaye indi ci réew mi président teeru ko teewal na fu ne Sénégal waaw di ko jaale tamit euh, Bira Sène ñëpp ñoo leen koy jaale daal kuy nepp ci làmb ñoo koy jaale di ko jaale waa Géejawaay gépp tamit ndax ñun ñoo ñàkk nag ak lu làmb ñàkk ndax sunu papa Sénégal a ñàkk ndax ki dem sunu baay la te liggéeyal na réew mi loo xam ne tey jii hmm? Hmm? ñëpp a ñàkk waaw ñoo ngi koy jaale Balla Gaye mu dëddoo ko jàmm tamit wax dëgg yàlla ndax daal ngërëmu waajur daal moo jar a ñaan at moo jar a sàkku te Balla gay am na ngërëmu waajur yow mi nga xamee ne jege woon nga kër gi lool tey boo doon wax ci paa bi lan ngay wax ci moom. paa bu am fulla am fayda am caractère bañ ko ko yab paa bi nga dégg ñu naan dafa tàng tàngul de doon bañ ko ko yab day bañ te loolu la def ci ay doomam loolu la def ci ay doomam ay doom tamit vraiment ay jàmbaar lan kenn yabu leen waaw man daal li ñuy ñaan daal euh, yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla xaare àjjana sunu papa ju baax la woon wax dëgg yàlla te tamit euh, maa ngi wax euh, yow mii xawma ma euh, nabu seen site bi dama xamul ban site la waaw ndax ñi bindoon naan Balla Gaye dafa feebar ñooñu mbaa bokku leen ci du yéen ñu ko ñëkk bind daal wax dëgg yàlla mer naa leen trop ndax am na yoo xam dafa rafetul bàyyi leen joxe fausse information fausse information baaxul xëy rek naan Balla Gaye dafa ba Balla Gaye dafa am njaboot am yaay ah am ay doom am ñu ko bëgg comprendre nga am ñu ko bañ kon nag loolu soon koy def na rafet daal ah, di joxe information bu baax di joxe fausse information loolu baaxul dégg nga maa leen di gërëm di leen sant di ko jaale yéen ñëpp di ko jaale axul làmb yëpp àdduna bépp ñu leen koy jaale jërë ngeen jëf. merci moom mooy sa kilifa moom la ñu jiital te yàlla rek tax loolu ji mu ñëw jaar si Balla Gaye dóor ma saako nee na tey jii alhamdulilahi alamin nee moo tax mu ñëw moom itam di muy suñu papa Double Less ginnaaw bi ngeen yeewoo démb si divers bi ñu tàgg leen seen papa tey seen première réaction euh, loolu lañ jàngal. waaw dañuy santaat yàlla baax a baax te xam ni ala kulli ale moom du jaas waaw li ñu war nag mooy sant yàlla baax a baax di ñaan yàlla rek yàlla jégal ko te xaare ko àjjana ndax loolu la nga la fi dese suma yaakaar. Mm. ginnaaw bi nga xamante ni toog na ay weer euh, tëdd feebar euh, tey moment bi nga xamante ni daan ngeen dem di ko seeti moment boobu soo ñëw benn jour xool sa papa xam ni kii euh, yàlla rek moo ko fi bàyyi. waaw so feebar su mag nga nekk mag di soox tamit alhamdulilah nag amul am na njaboot yoo xamante ni taxaw nañ ko aussi tamit waaw que loolu nag moo gën a doy sant yàlla parce que mënoon naa gën a métti aussi mais nag. waaw feeru daal métti woon na métti boo xamante ni ku dégg sa bàmmeel rek euh, man du man du du kenn ci njaboot du gawuma ni kër am na ci yaakaar na ci génn mais nag euh, mënut a ñàkk sant yàlla mënut a weesu loolu waaw mënoon naa gën aussi waaw. waajur nga xamante ni moo leen jur si goñam euh, tey mu fas yéene dëddu fas yéene yendu tey si nga xamante ni mooy première këru dëggam fee nga xamante ni mooy cimetière Yoff tey absence am tey nu muy des si. ñu delloo lépp ci loxo yàlla. Mm-hmm. ndax yàlla lu soobu mu mu gane ko ci àdduna mu jur ñu. am na ñoo xamante ni tey samay xarit lañ maa ngi ànd ak ñoom ñoom gisuñu gis gisuñu bàyyi kon ñoom ñoo ma gën a métti la foofu waaw la ñuy wax waaye gën la moom yàlla xam na ne amu fi waaw li res ak mooy l'essentiel moom ñu ngi koy jébal tey borom di ñaan yàlla rek yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko àjjana fa mu jëm gën fu mu jóge waaw loolu daal laa xam ne moom loolu rek lañ ko desee ñun ci ko suuf parce que yar nañu fu ñu war a yare aussi tamit teg nañ ci yoon won nañu yoon bi boo na ci doxee di ngeen am di ngeen réussir ci seen life mooy diine dox mbokk rafet xool ti jaamu yàlla bàyyi tooñ jéem a dugg loo xamante ni boo ci duggee doomu aadama yi nañ ci kontaan te naa fekk du ci am kon loolu moom dafa ko daan conseil surtout waxtu julli moom mooy loolu waaw nga xam man moom sama sama nit la aussi dañ daan waaw dañuy wax li ñuy wax mais teewul dañuy kaf dañuy reetaan sama moom dafa soo sonal moom franchement pas daal sama nit la. seen nit la tey ñu ñàkkoon suñu waajur tamit Mbaye Guèye tey loolu lan la jar làmb tey ñu taxawaat seetlu ñu waat ko bu baax a baax a baax. waaw Sénégal moo ñàkk rek euh, Sénégal la ñàkk rek parce que Gris doo démb rek parce que ay fii ay onze heures minuit minuit mi ngi fi woon yu mel li nga fi wax loolu la wax boo xoolee ci ginnaaw tuuti tey boobu mën nañoo bañ a judd. tey foo toll dégg Double Less Mbaye Guèye ñoo fi nekkoon au tey jii ci seen ci benn période la leen yàlla yóbbu même pas un mois wala ci lay yem waaw mu ngi noonu parce que ñëpp tëdd feebar yàlla rek leen moom nag waaw yàlla la soobu yàlla la neex ñu ñaan yàlla rek ma lutteur sax waaye képp koo xamante ne wuy ji nga yàlla suñu borom yàlla na la yàlla yërëm te jéggal la taxaar la àjjana waaw ci barke alxuraan sa xarit la woon sa waaw suma xarit nga ko léegi sa biir wax ma amoon du nekk a sama combat bii ak Moussa Ndoye maay waxtaan ak moom mu ngi jooy mu ngi jooy ko sax ci interview ba may dem fii maa doon jooy di di di tàggu sama yaay mais ba ma demee sama papa moom faraa ko fekk muy jooy parce que xam naa ñeemantal bu ma am ci man ak yéen a moom ci man xam nga yenn saa dañuy toog di may bëre moom ci pet te tànk bi boobu ngeen jeune jeune bi maa koy téye di ci bëri di mujj mu saaga ma xam nga kon beneen sax xamante ni du lépp lu ñu mën a wax daal. sa deuxième message dem na tey tey ana tey ban kàddu tey ngay mujjee tëjee ki nga xamante ni mooy sa yàlla ko yàlla yërëm te xaaral fa àjjana loolu laa ngi waa jànq maa ngi lay ziar di la fay di la bëggee lu bëri. di la jaale ci li nga xam ne moom lañu ñu bokk. waaw gannaaw baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim dañ naan xaaloo inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun wax dëgg yàlla ku nekk mën nga koo jaale sa bopp waaw rawatina aklu làmb rawatina famille Balla Gaye yëpp Sa Thiès xam nga képp koo xam ne ne yaa ngi ci axlu làmb rek ñu la koy jaale di bokk yow naqar bi waaw. tey boo amoon tey looy wax ci paa bi anecdote boo xam ne xamoon nga ko ci moom lan lay nekk. waaw paa bi li muy wax ci moom mooy xam nga dëgg gi mu nekkee woon wax dëgg yàlla du raayal kenn ginnaawam su gisee dëgg dinaan lii dëgg la loolu moom moo gën a marqué ci moom te nit xam nga nit ku baax noonu lay mel dëgg yàlla ku fonk njaboot ku bëgg njaboot wax dëgg yàlla ku taxaw njabootam loolu daal naa ko seede ci moom dëgg yàlla waaw. Euh, boo amoon tey message booy dénk Balla Gaye lan lay doon. waaw message bi moom mooy di ko ñaanal suñu borom rek mi nga xamante ni moom moo am doole ak kàttan may leen xolu muñ ndax xam nga metti na trop nga nekk ak sa waajur bi ngay xale ba ni ngay nekkee mag xamoo ko dul moom nga jékki-jékki mu dëddu loolu dafa metti maa ngi leen ñaanal sunu borom mi nga xamante ni moo am kàttan may leen doole bu leen bu ñu amee xolu muñ muñ ko te yàlla rek tax waaw. d'accord merci ñu lay jaajëfal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ensemble le voir lorsque je je suis arrivé je ne pouvais plus me tenir larmes pourquoi parce que connaissant l'homme connaissant la personne de Wallace actuellement comme il est et comme il était avant. C'est ça qui m'avait fait pleurer. Donc rendons grâce à Dieu. Prions pour lui que la terre soit légère sur lui. papa maa ngi lay ziarat. maa ngi lay fay. am nga jàmm. sant yàlla bu baax a baax. di la jàll li nga xam ne moom la ñu bokk muy suñu papa Double Less defe naa ne euh, yow ku mën a wax ci moom rek war nga gën a mën a yey wax ci moom tey loo ñu mën a wax ci Double Less. lu ma mën a wax ci Double dafa bari. Double Less dafa nekk icône de la lutte. dafa nekk un grand monsieur dafa nekk nit boo xam ne dafa ñeme nit tu dëgg lu mu bugg a wax kenn mënu ko terewu mu wax ko te mu nekk dëgg Double amul ku mu bëriwul fii ci Sénégal nekk champion bëri na ñëpp Double Less champion d'Afrique ñaata médaille d'or la indi fii au Sénégal Double Less dem nañu ñooñu foog ne dina décrocher en champion du monde la médaille d'or yàlla defu ko kon Double Less lu ko waroon ñëpp ci Sénégal def na ko c'est un exemple donc yaakaar naa ne doomam yi am nañu sas waaw tout récemment jeudi bi passé rek waaw laa dem ci moom ci clinique yi Kër bu mu nekk ànd si ak ñoom euh, Sitava Thior ñoom Fagade ñoom Dieng Diouf ñoom Ndiouga Dia ñoom Mbartine et cetera ñoom dongo béy bi ma ñëwee gis ko rek su ma rongoñ dafa tuuru lu waral loolu suma yaram dafa daw du balees bu ma xamoon bu njëkk ba. Double Less moo gisoon bu njëkk ba ak Double moo gis actuellement c'est pas la même chose mu ne ma ma nga lan la ma ne ko du dara mu ne ma kaay ma ñëw mu jox ma loo mu ne ma lan la ma ne ko grand du dara yàlla dina la fa yëkkati dañuy ñaan yàlla yàlla yëkkati la fii donc loolu moo ma jooyloo du Less dama ko miinoon mu miin ma ba su ma ñëwee suma kër dañuy wax ne du lekk ceeb waxal sa jabar mu toggal ma cëreeb su ma jabar toogal ko waasa ku ci bugg lekk mu téye sa loxo ne ko déedéet lii pour man la mais du ma rees xaalis soxla ko moom cosaan moo ko soxla lu mu doon moo ko soxla lu mu doon incarné moo ko soxla Touba Less dem na ba ñu ne ma ko le seigneur de arènes kon amatul lu mu ko desee ci àdduna waaw maa ko ñaanal yàlla yàlla xare ko arjana am na soo léegi bu ma la laajaatee su ma ñëwee ma laaj la su ma la laajee tey ci li nga xam ne nii moom moo di ak njabootam gi fi nekk muy héritage boo xam ne war nañ ko taxawee muy ay doomam tey ban euh, loo leen di wax muy Balla Gaye ak Sa Euh, Balla Gaye ak Sa Thiès ak yeneen doom yi yëpp gis nañu ni ci sas lañu am parce que soo amee bàyyi mu am lu mu def ci réew danga nga bañ ñu joxoon na ci lu lëndëm yaakaar naa aujourd'hui Balla ñoom Sa Thiès dañu war a nekk exemple parce que seen bàyyi exemple seen bàyyi bu ma ko tënk ñu ñoo àndoon Côte d'Ivoire doom di na ci équipe nationale ci drapeau Fologo en Côte d'Ivoire bu ma ñëwee tenk ko bu ñu génnee dafa jàpp su ma ñëw ma ne ko da nga xaru dinaa la dóor de ma ko grand bàyyil ñu bëre rek da war a may xale chance bu may bëree ak Double Less kenn xalaatoon bi boobu Robert mu ngi toog suma wet ak suma ménagère dama ñëw rek mu xulo ak man looy tënkee Double Less daf lay yàq ma ne ko Double Less mënu ma ko mënu ma daan mun naa Robert noo ma wax ne da nga dëgër ma ne ko dinaa bëri ak moom ma bëree ak moom yàlla jox ma ma am match nul ak moom bëriwaat ak moom yàlla jox ma ndam am na ñu bari ñoo wax ne sax man ak Double dañu commune waaw parce que fekk man maa nga jàng naa Double lees entre naa ak moom ba xam fan laa ko war a jaar te moom defu ko mu duñu conseil ñun ak ñoom docteur Faye ñoo àndoon ci équipe boobu. ci boobu tey boo xoolee mu mel ni seen génération boobu wala sax ñi la mag ndax per bal ma Mbaye Gueye saa Kajoor Mor Fadam ñoom ñëpp tubaabu joor wuy ji nañ seen borom mu mel ni tey taxawaay bi ban la war a doon ax lu làmb euh, euh, parce que des fois da ngay dégg jafe-jafe yi waxante bi fii est-ce que dara jotul jotul ñu xoolaat taxawaay bi actuellement. taxawaayu Janna Xolaat di jàllee d'abord le ministre des sports di jàllee le président de la république son excellence wax ne les anciennes gloires war na leen gestu war nañu toog ak moom waxtaan ak moom nit nag ba sam su jotee kenn mënu ci dara mais xam naa ne monsieur le ministre Makhtar Ba mu ngi jéem ci lu mu mun mais war nañu mun a toogaat gën a gën a yaatalaat affaire yi jar na waxtaan. jar dem ba fi nga xam ne nii moom mooy Moscou défendre couleur Sénégal parce que yaa tudd léegi état ministre des sports président est-ce que tey sportif yi nga xam ne dañu défendre couleur nationale à travers le monde te des fois bu ñu leen di xool seen mujj day metti trop est-ce que yeyoon nañu loolu. non mooy lu ma la wax rek mérité wuñu loolu ils ne méritent donc yaakaar naa ne am na foo xam ne war na leen mun a teg foofu teg foofu moo am jox leen ay jéego boo xam ne. suñu añee problème suñu demee foofu ñu faju suñu añee yeneen problème suñu demee foofu problème yooyu faju donc. ndax Double Less tey mën nañ ne bu amu kon doom bu mel ni Balla Gaye wala Sa Thiès ak yeneen njabootam mën naa mu am i jafe-jafe te am na ay champion yoo xam ne ñu ngi fi dund nañ jafe-jafe yooyu ñenn ñu wujji nañ seen borom ñenn ñaa ngi fi. ne su amuloon doom comme Balla comme Sa du fi egsi yàlla moo jël ku nekk day béy waaram rek. doom yi suñu béyee seen waar moom seen bopp lañ ko defal ku nekk fii te béyloo sa waar sa diggante ak sa baay sa bopp la waaw kon toujours nañu ñaan yàlla rek yàlla mun nañu jàppale ñu di béy suñu waar mais xam naa ne ñoom am nañu sas waa am na ñu sas bu rëy a rëy a ay yeneen heure waratu leen parce que seen baay monument la ñu gëstu seen xaaritu bàyyi dem ak barke dema ñu doon sonn ci ñoom doon sonn ci seen baay man Double Less dama ko topp te yàllaa tax moo topp ko depuis ci feebaram bi fu mu nekk rek fekke naa ko fa fu mu nekk clinique bu mu nekk fekk naa ko fa ànd ak ancienne gloire yi waaw parce que loolu dama koy dëggal parce que ànd naa fi ak yow benn tournée boo xam ne kera ñu ci bare bari dem nga ànd ak ay nit jël ay enveloppe jox leen jàppale leen mu mel ni yow tamit sa taxawaay am na solo trop trop par rapport ak ñoom ñi nga xam ne say mag lañu wala ñuy say morom loolu mooy tax ma def appel le ministre des sports Makhtar le président de la république son excellence Macky Sall mu jàppale ñu mu gëstuñu parce que yàlla moo ko fi teg kon su amee ay doom ay set ay jarbaat yoo xam ne dañu xaran ñu am lu ñu doon mémet ba nga jox leen ko mu arène nationale ñu ñëw nga def ko ko. kon mbokk yi defe naa ñu ngi fi nga xam ne ni moom mooy golf kër Balla gay 2 way juróom wàcc. génn àddina démb ñu gis tey Lac de Guiers ñëw teew Lac ñu ngi lay jaale li ñu bokk di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana lan mooy sa réaction si mbir mi am. waaw dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla bu baax a baax euh, di wax na làmb am na ñàkk ñàkkati dañ làmb ñàkk na Balla Gaye 2 ñàkk na Lac de Guiers ñàkk na Sa Thiès ñàkk na mais surtout ak làmb na. suñu papa Double Less lu bëri ci ñun. kon donc am na loo xamante ne tey bu dalee suñu kaw tiis bi dañuy ñaan yàlla yal na ko yàlla xare àjjana yàlla suuf sedd ci kawam. ndax ñoo bokk papa Double suñu lépp la woon waaw suñu lépp la woon. moo leen boole woon ni mu leen jure woon la leen boole woon. téye noonu la boolewul yilif waaw noonu la ñu boolewul yilif tey bu ñu bu ñu bu ñu miinee Casamance à 100 pour cent jëmmam la parce que bëri fu mu ñooñu moo ñu fa doon dugal fu bari foo xam ne moom moo ñu fa doon fi nga xamante ne foo doon dem di fa ñaan lu yooyu moo ñu fa dugaloon moo tax ñun ñàkk nañ vraiment ñàkk nañ ñàkk nañ mais li santaat yàlla daal marchandise yu yàlla la rek. yàlla moo ko jëlaat. te ñun ñëpp dinañ dem wuyu ji suñu borom waaye yàlla nañu fekk ci jëf ju baax. mais a laaj a dund ak ci moom xam ne jikko bu dëggu. dafa dëggu. moom lépp lu mu wax rek lu dëggu man loolu moom ma gën a neex ci moom. loolu du wallaahi azim. dëggu lépp lu mu la wax. jàppale la mu wax looloo am. bu dee ngar bi. man loolu moom mooy gën a marqué ci moom. bu parce que xam naa ne du ñu gisati koo xam ne dina taxaw du ñu wax dëgg. boo bi daf ñu koy wax nii eh lii ak lii boo defee li danaa la mbere boo defee li danaa la bàyyi amaaka laaxira te la ngay wax la mu lay wax noonu loolu lu ci moom moo tax nañ ko ñaanal yàlla yàlla na yokk yàlla yàlla yokk leeram lan mu la gën a marqué loo xam ne dund nga ko ak moom loo xam waaw mooy suñu dem Casamance mu nekk koo xamante suñu papa la dugg ak ñun fépp. ngeen baal ñu tudd ñu ci biir Casamance dugg ak ñun foo xamante ne sax am na ñoo xamante ne boo leen jëloon fii na leen dugg leen fi duñ fa ñemee dugg. lu leer laa la foo xamante ne ci biir Casamance am xam boo leen fi jëloon na leen fi duñu dugg. ndax lan ndax bëgg njabootam bëgg njabootam réussir loolu mooy koo koy perdre du balees moo tax ñu fayam tono bi tey kon defe naa ne am ngeen aw sas parce que tey dem na wuy ji borom yàlla na ko yàlla jégal nga des fi Balla Gaye da des fi Sa Thiès des ak seen ay rakk ak ñeneen ak ñeneen ndono boobu nu ngeen ko fas yéene sàmme sàmm ko rek sàmm nuñ ko mënta sàmmee ñu sàmmee ko ko mënta sàmmee ñu sàmmee ko noonu parce que tey am na lu mu fi te loolu mu fi ji noonu nañu fexe rek ñun suñu bopp ñu koy sàmm te di dëggu nag lu am solo suñ papa du bales ji na fi kenn waru ko mën a effacé waaw kenn waru ko mën a effacé euh, yàlla yàlla yokk leeram rek loolu rek laa koy ñaanal vraiment. mais tamit su ma defee benn seetlu daa mel ni yéen ñi nga xam ne ay doomu Kaasase gi te nekk ci ah, mu ni dajale boobu nga wax daa mel ni seetlu nañ ne yéen ñëpp ku ci amoon bés da ciy sonn dañ ko daan gis mu am ci présence bu wóor a wóor ah. ah. muy Balla Gaye woo di Lac de di Sa Thiès di Ama ku ci amul bés da lay sonn ci son sonn tellement daf ñuy taxaw ci lépp ci lépp la ñuy taxaw muy nga yëg muy nga ñàkk yëg day woo ay kilifa ne leen leen sama doom bi tey jii day bëri bu ñu amee ndam mu kontaan bu ñu amee safaan moom lu ko metti kon donc jëmm jooju ñun ñàkk nañ vraiment ñàkk nañ waaw ñàkk nañ su ma la waxee ñàkkuñu rek waxuñu lu am nañ dëgg nag. te ñoo xam conséquences yi mais bu mbir mi demee ba sedd ñun si la ñuy foog xamee ne ñàkk nañ ba gan yëpp jibi ci la xamee ñàkk nañ dëgg waaye ngalal lañ lam fu ji ak ñam ko doon séqal muy Balla gay di la déggee di saakees nañ fexe ba loolu nañ ko téye lam fu ji ak ñam doon jëfanteel buñ ci xamee cerse bi nañu fexe ba téye ñooñu loolu lay wax. fi may jeexalee ak moom it gis nañ tey yow ak Balla ku ci nekk am nga loo génn wax. yaa ngi dégg ci xëy na ay wax bu doon jóg polémique Balla ak Lac Balla wax na ne yéen ñaar seen diggante problème mu fa am te amu fa nit ñee koy créer yow nga wax lu mel noonu mu mel ni kon daal daa mel yéen la leen boole xam ngeen ko. waaye yow kii sëñ am na loo xam du waxu dëj maag Balla Gaye de àdduna du neex neex nit ñi dañuy sonal seen bopp. am na loo xam boo ciy wax di ci waxaat ni day comme day mel ni comme si que dafa am lu yaa ngi dégg nit ñi nag kenn moomu leen ah chaque jour que jëfee nit day jënd connexion cent franc di xool li nga xam ne dina tax Balla Gaye ak Lac de Guiers du am problème te ci kàttanu yàlla wallahi dara du ci mës problème. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen baal wax yéen journaliste yi a baax. dinaa la ñaanal tamit parce que ci dëj lañ ne métti na trop waaye dina la ñaan waaw yàlla na naa Babacar parce tey nit amul lu du bësama ah. muy bànneex di naqar bu ñu tollee ci bànneex a ah, nga ñaanal ma ci lu mel nii sëñ Babacar dama la ciy sant baax a baax li wax ne na yàlla nangu ñaani ñu ngi ko ñaanal tamit yal na yàlla dañu fekkee ko ñun ñëpp ñu jëriñoo ci ñun ñëpp waaw di la wax ne daal comme sam papa ko tuddee sam papa daf ma tuddee doom daf ma sam papa daf ma tuddee papam yaa ngi dégg man tam ma ñëw tuddee ko sama sama doom mbokk yi leen dem jàkka waaw ñëpp dem hal siqaami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 kon yéen ñëpp yéen a bokk nday bokk baay ginnaaw bu ñu la jaar luñ bokk waaw waaw noonu la demee Babacar maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp boo xoolee liñ taxal teew tamit dafa nekk loo xamante ni dafay dépassé làmb daal waaw dafay dépassé làmb parce que ñu ñëpp ñoo bokk nday bokk baay wala ku xam dee xam dafa dafa la Balla suñu frère la Double Less nu mu juree Balla noonu la mu juree noonu la juree keneen keneen suñu papa la ñun ñëpp donc bu fi jógee foofu ñu ñëw bokk tiis bi waa géej waaye bokk tiis bi Balla bokk tiis bi Sa Thiès ànd ci ak ñoom masawu leen baax di ñaan suñu borom xare ko àjjana waaye comme ni ñu wax rek lamb solidarité ëpp na fii daal mhm. ku am bànneex ñëpp day ñëw mais aussi ku am naqar ñëpp day ñëw loolu mooy laaw mooy àdduna ban témoignage nga mën a def ci suñu papa Double Less di seen papa comme ni nga ko waxee. waaw la moom sama papa moo ko gënoon xam lu bari man xaw ma ko ba xale laa wax ci moom yàlla dogal na ay temps ma amoon suspension sama papa Double ñu mel ni seen doom lañu suspendre ñu taxaw ci papa Mbaye Gueye mook papa Mbaye Gueye ñu mel ni seen doom lañu suspendre ñu taxaw ci di dem di seet Alioune Sarr di dem fu ne di ci wax donc loolu wane ñu ñëpp la jur daal di jaare Sa Thiès di mhm. jaare famille bi yëpp di mhm. jaare waa Guédiawaye ak monde làmb yëpp di ñaan suñu borom xare ko àjjana bu baax incha allah amoon kaddu yooyu wax axlu làmb ndax lii dafa wane a a mhm. la àdduna nii la moom xam nga ñëpp a ngi ànd boo xoolee yéen ñi xam ne journaliste yi seen a ngi ànd donc ñun mbër yi mooy suñu métier il faut ñu bëre waaw bu ñu làmb boole dañuy bëre mais comme sama mot bi may wax rek bu jeexee dafa war a jeex daal ñu ñëpp ñu bokk nday bokk baay ku am bànneex ñëpp teewal la ku am naqar ñëpp teewal la bala bu ñu gisee au moins sa affaire bi dina xaw a sedd ci moom parce que Baye dafa sori quoi ñuy masa wu ñëpp jaajëf gars yi maire bi du sentir vraiment absence su absence su PA bi tey li ma lay laaj man ginnaaw bu ma la nuyu ziar la hmm, sa teewaay ci armeel yi parce que wàll wàllu làmb moo xew xewle yow tamit artiste nga mais boo teewee bëgg nañoo xam lan moo war effectivement teewaay bi effectivement bon teewaay bi moom sama diggante ak Sa sama diggante ak bal Gaye voilà mu nekk ñaa ñoo xamante ne samay frère lañ samay xarit lañ voilà du affaire làmb sax moo ñu boole ah mais affaire nit ak nit ndaxte li ñu boole du yëfu làmb quoi mu nekk ñoo xamante ne dañoo seq relation yi sincère franchement bu nekk ñoo xam ne dañ leen apprécier bu baax a baax a baax mu nekk ñu baax ñoo xamante ne vraiment ñu benn problème mu apprécier leen mais nag euh, lu mel ni su amee mënu ma bañ a ñëw lépp lu ma doon def dama koy bàyyi ñëw teew donc euh, tey jii nii bés la boo xamante ne bés bu triste pour milieu de la lutte mais surtout sport ak Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp moo ñàkk waaw ñu ñàkk koo xamante ne ku mag vraiment mu mel ni kon bu ma la déggee artistes yi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllum art bu mu mën a doon rek ak les lutteurs chaque jour rek dañuy am ay liens yoo xam ne nii yoo tax lay doon ba bu bésu bànneex amee ñu bokk bu naqar amee ñu bokk ko. effectivement parce que tey yaakaar naa ne du ay nitu làmb kese nga fi gis. gis nañ fi ñëpp ah gis nañ fi façon nit bu nekk euh, ay personnalité tamit. donc tey day wane bés bi nu mu toll day wane tamit euh, ki nga xamante ne moom la ñuy ñàkk tamit nu mu toll moo tax bésam nii rek la mën a mel quoi waaw dëgg tey euh, lan ngay wax Balla Gaye numéro 2 taxawaay ban la war a am ginnaaw way juróom génn na àddina moom ak Sa Thiès waaw taxawaay mag mu jàppale ay rakam euh, vraiment tey jii ñoom ñoo war a wane ne que ils ñu aussi tamit euh, ñu ñu ñu jàppale parce que tamit ñàkk waajur dafa metti ñu jàppale seen yaay surtout surtout waaw parce que tamit xam naa dina wéet mais tey ñoom ñoo ko mën a wan loo xamante ne tey ba du sentir tey jii nii seen absence papa. du sentir seen kontaan naa ci yow. maa ngi gën a kontaan xam wax ko da nga koy teg caaxaan nii mais après bu ñu demee nag ngay def ngay remember di reculer say di reculer say mémoire vraiment daal mënuñ ci waxul ba xotteeku waaye daal li ñuy wax daal mooy daal ñaanal ko yàlla xaare ko àggina teg ci njabootam gi loxo tey papa man dinaa la laaj dinaa la jàllewaat ndax yow itam ku ne xam na ne fan yii li la dal metti sa ñaari mag mhm. ndax buñ ne les ne mbay géey xel yi dem faas mhm. nga ñàkkandoo leen ci presque lu matul weer mhm. defe naa douleur boobu metti na trop ci yow ginnaaw buñ la jaale alhamdulilah rabbi amin dañ koy nangul suñu borom subhanahu wa rek ñun dañu fekk ji waaye yàlla na yéex ah, boo xoolee mbay géey ak double seen diggante eh, eh, dañoo njëkk a bokk fu ñu daan dëkk bokk fu ñuy fanaane Eh, mën naa ne Mbaye moo tàggat Double Less yu bari ci biir Ndakaaru parce que boo Double Less ngi doog a ñëw mais làmb nag moo mën a dox yàlla daal moo mën a boole ay nit ñu bokk wërsëg mooy def boole wërsëgu Mbaye Guèye ak Double Less ñu dem ba ñoom ñaar ñu bëree ñaar yoon te mosu ñoo ñaawoo dañuy demlante di dikkalante Double Less moo gis suñu kër ginnaaw mu bëree Mbaye xaw ma nu mu toll yaa ngi dégg fi may waxee de ba bi ñuy jubilé yëpp maa ngi taxaw seen kanam ñoom ñaa ngi taxaw sur xubi nii di waay gi dugg ma taxaw di nii boobu maa ngi samay digg affaire koo xam ne leen boole ci àddina yàlla boole leen ci àllaaxira 28 jours la ñu rawantee mbéy gi amagul mois double la fekki kon boog ñoom yaa seen colère mat na mat na mooy ànd nañ ci àddina ànd nañ aussi ci àllaaxira ñaanal leen yàlla xaaral àggee mooy moo ñu desee te di wax ne nag ah suñu jeunesse su pays suñu jeunesse su réew nañu xool ci ñaari jëmm yooyu bisu tey bi sax bisu Double Less kese la dañuy xool ci jëmu Double Less kenn mënul compter ñaata médaille doon la am Sénégal amul ku ko mën a compter ku ko bëgg a xam da ngay dem ministère nga demandé archive ñu génneel la ko mënumaa taxaw ne jël na bii jël na bii jël na bii moom sax su nekkoon du ko xam ndax mbër dina am dina daan cinq cinquante combat nga laaj ko mel ne 43 laa daan du ko sax jàpp day bëri di dem rek donc Double Less moomu tey jii Sénégal amel na ko njukkal lu rëy rëy lu mag a mag a mag après Double Less dafa nekk mbër sur le plan national wane champion ba ñu woowee ko seigneur des arènes mais ba pare mu am ay doom yoo xamante ne tey jii dañuy teg ndawal ci làmb ji loolu nekkul lu ndaw donc moo tax ma ne monument tàkk na waaye takk na waaye doom yi ñoo ko war a fay defaraat ko ba mu jekk parce que noonu la doom bu desee moom doon baayam moom da koy doon doon dañu war ñoom dañu am mission bu ñu war a àggali ñoom muy Sa muy muy Balla Gaye muy ñeen ñi nga xamante ne dañoo jël métier am loolu daal wax dëgg yàlla sama gars yi moo doon kàddu yi ah ñu ñëpp ñu ngi métti lu nag am na xar waaye na bu leen fàtte mukk ne caméra jekk na trop photo yi rafet nañ micro baax na mais li ko ëppal solo mooy ñaan xul wala yu dul bari yu jeex yàlla yàlla ko ci ca bàmmeelam. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñooy ancien gloire liggéey fii si làmb loo xamante ne kenn dootu ko fàtte. Mm-hmm. xalaatoo ne euh, war a defal li nga xamante mooy UCD ci arène nationale bi. kay ah kay ah, benn loolu nag moom ah foog ñuy jiite am matu am reconnaissance su defal leen ko. ndax man su ma su ma ko mënoon tey jii dama koy def yow soo ko mënoon yow ma posé question bi da koy def mais loolu affaire u état la ak ministère que ñu tuddee làmb ak que ñu tuddee tribune A diw tribune B diw loolu état na ci xalaat ndaxte am nañ suñu aaran bopp bu ñu moomal suñu bopp boo nee nañ ko tuddee Mbaye Guèye Samba ne déedéet boo nañ ko tuddee Falaye Balde Samba ne déedéet donc koo ko bëgg a tudd rek mu am am coow parce que Sénégal ñoo baaxoo bala ñu lay tuddee mbaa ñu lay saagal fekk nga dugg ci biir suuf comme Double Less tey jii bu subaa mbaa ginnaaw suba nga dégg ku nekk naan nañ ko tuddee place bi nañ ko tuddee stade bi nañ ko tuddee arène bi yooyu nag ngir yàlla laay war a suul dafa war a nekk ci ci dundam ndax àdduna ci la ñuy bànneexoo maa ngi nii jàkkaarloo ngeen may xool may xool may nooy ngeen di noyyi wala déedéet mooy wax ngeen di dégg waa su ma dëddoo comme Double Less jii yàlla na yéex mu yéex ak mbay yéex sax benn la dañuy dem rek yàlla na yéex amin ba rabal alamin mais après ngeen toog naa Moustapha mu galgalee diw ba mu kiyee diw arène bi la tuddee déedéet avant muy dund am na suñu ay kilifa yu bari fi jege ci affaire artiste dafa leen dal mais Sénégal dañu war a dellusiwaat di tap di tappal raaya ay nit yoo xamante ne am nañ mën a ci réew mi ñu yëkkati drapeau Sénégal ñu ngi ko tappal ci ba ñuy ñu seen grand boobu ànd seen njaboot même bu ñu dox ñu diri leen ba foofu ñu toog tegal leen chaise ñu takkal leen raaya ba bu ñu wéy seen borom xam ne ñoom bànneexoo ko waaye boo xamante ne yow yëgootinoo xamoo yaa ngi ci biir suuf fii quelque temps nga nekkaat leneen lu bokkul ak suuf la considération bi ñu war a jox nos anciens gloires dafa des dafa manqué te foog ñu jox leen ko jox bi nag moom mooy ñi fi ne ci jamono xew di bëre ñoom Modou Lo ñoom Gris Bordeaux ñoom Balla Gaye ñi ci topp xew ci jamono jamono ji nga xamante ne ci les réseaux sociaux am ci la télévision am ci la rajo am ci la loo xamante ne bu xewee léegi yéen tey jii léegi ngeen génn ko yaa 10 minutes benn télévision mën na ko génne te te demul jël def montage doo ko dugal ay journal mbaa yu mel noonu yéen moom c'est tout kon boog ñoom it nañ xam ne dañu war a taxaw di xeex loolu ba këram yu sotti ndax loolu mooy àdduna di ko bañ ba ba ñoom bu ñu fi tollee seen digg jamono ñu toog di dund na xojj ñu daal di tudde ay mbir ak jox leen ay raaya si loolu tamit comme même chose am rek salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Modou Lo nag nekk fi ku ne xam ne mu ngi woon Kigali waaye gis nañ fi ñoom Papis ak ñoom Serigne Ndiaye laay tamit mu ngi nii bokk ci ay nitu Modou laay tey perles génne na àddina looy wax njabootam looy wax famille lamb waaw Babacar ñu ngi masuwaat di masuwaat monde lamb yëpp ah. di jaale Sénégal yëpp parce que yaakaar naa Double Less du woon pour làmb rek pour Sénégal yëpp la ah. lii tamit day wanewaat tamit xar kanam làmb kañ làmb mën nañ boole ci géew bi mais ñoo bokk lépp tey moo waral ñu bàyyi suñu soxla yëpp bàyyi suñu activité yëpp ñu jëbbal Double Less yàlla suñu borom alalam la jël yàlla bu soxlaa ñëpp dañuy ñàkk comme alal la comme jël na moom dañuy masawaat ku mel ni Balla Gaye 2 Sa Thiès di leen masaw wu leen wax ni àddina nii la waa nan nan yokkaat muñ ñaanal ya seen papa yàlla suñu borom xarak àjjana gën a kawe tey loolu moo nekkoon suñuy tànk waaw di wane suñu cofeel ci ñoom ñoom Sa Thiès dina wane àdduna noonu la quoi moom ñu ñoo ànd. yow laay jërëjëf suñu Babacar jërëjëf. ah Babacar yow suñu chargé de communication yan kàddu njaal ngay yëkkati ngir teg ko ci njabootu Sakho njabootu Ahlou Lamb. waaw dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek maanaam ñun ñëpp si yàlla lañ jógati ci yàlla la ñuy dellu. yaa ngi dégg defe naa tey a ah, ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci làmb bokk ci làmb di ay reporter yore ay micro maanaam di jàllale xibaar yi. Mm. lu mel ni su amee ñun ak Balla Gaye 2 ñoo koy bokk ak Sa Thiès ak famille bi yëpp. di leen jaale seen papa di ñaan yàlla yërëm ko yaa ngi dégg te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di ko jaar reporter yëpp man Babacar nag suy wax waxul ci turu boppam mais tey ci turu reporter yi lay wax. su ma ko waxee nag mooy la président Bour Guéweul ah Pape Maguette Ba la secrétaire général ak képp ku nga xam ne yaa ngi ci biir di ko jaal képp koo xam ne daal yaa ngi yore micro di yëngatu ci làmb di ci wax di wax ne olof ne na euh, maanaam ñu bokk peut-être ñu la ay goj tey ñun ak mbër yi ñoo bokk milieu ñun ñooy dem si ñoom di leen jël di feeñal li ñuy def ñu di ko soxla ci ñun kon ñooñu defe naa bu ñu amee naqar am tiis dañ koy bokk ak ñoom ñi ki tëdd fii daal yal na ko yàlla jégal ak ku fi tëdd liñ ci war a jàngate tamit Pape Maguette lenn la rek maanaam ñun nañu jéem a bokk ndey bokk bàyyi <laughs> xam ne maanaam gis nga àddina dara yàggul mm. il fallait que ñu xam loolu mm. parce que lii ay nettali la tey bu ñu lay wax ne la Double def na nangam def na nangam loola jeex na tey anamu tey dugal nañ ko jébal ko boromam ëllëg ñun ñi suñu tour day ñëw kon il fallait que ñu rafetal diggante yi aussitôt tamit ma ciy profité di waxaale que ni ñun ñi nga xam ne li safe location nañu jéema a bokk nday bokk bàyyi mhm. ànd te yàlla tax doxal dëgg yaa ngi dégg ñu fexe jàmm ñu lal parce que bu dëgg amul jàmm du am xanaa mu ne bu dëgg amulee sëñ Fallou bu dëgg amul rek jàmm du am il fallait que ñu lal dëgg suñu diggante su ko defee mooy tax jàmm mën a am ñu fexe mbir mi mën a avancer ñu ñuy nuyu mbër yëpp di jël njaal mi di ko dox teg ci loxo président des lutteurs en activité moo xam Gris Bordeaux la moo xam mobile la ak bépp association bu nekk ci làmb ñu ngi leen di jaale ki nga xam ne mooy suñu Papa Less di jaale tamit famille bi di remercier site internet yi mm-hmm. maanaam bàyyiwuñu kenn parce que tamit encore une fois nañu nangu kani Sénégal tey internet bi li muy vulgariser ci ay information amul benn média bu koy def loolu la yàlla dogal parce que monde bi moo toll foofu alhamdulillahi